mu des nag léegi ñaar ba ñett ci ay ay wax yu ñuy dégg ma bëgg yow askan wi laay waxal ma leeral ko léeg ñu ne waaw moom li mu wax respecté wul marabu yi respecté wul kilifa diine yi su ñu su doon ñi respecté wul kilifa diine yépp ni man la ñu mel kon de léegi léegi léegi ñàkk respecté kilifa dina jeex ci réew mi waaye nag dinaa fe dinaa wax lenn tey mu leer toll nañu ci réew muy foo xam ne bu dee boo génnee taxaw ñëpp daw si boo waxee ñëpp déglu ay junni junni junni di topp la ànd ak yow yaakaar ci la ngay def man soxlaatuma soxlawuma intermédiaire sama diggante ak kilifa diine yi parce que loolu moo fi am ku nekk day jóg taxaw ne moom mi ngi wax ci turu kilifa diina yi bu ma kilifa diina soxlawe su ma woowee ma taal sa moto wuy ji ko bu ma yónnee ndaw ma déglu ko man bu ma ko soxlee dinaa yónnee demander audience bu ma ko mayee ma taal sa moto dem wax ak moom waaye man maay wax ci turu kilifa diine bis bu ne nga gis ko nit su buggee def dara ne dajale nañ kilifa diine yëpp wax nañook ñoom bu ko defee ku ne man lii ànduma ci ñu ne dafa dafa waroog kilifa diine yi loolu man kenn du ci dugal de jàpp nañ ñi fi ñu toll ci réew mi keroog ba ñu tollee fi ñu toll réew mi mel ni mu mel kilifa diine yi dañoo yebal ci ñun ñu toog déglu leen ñu ñaan ñu li ñuy ñaan ñu nangu ko jàpp naa ni diggante bi noonu la war a demee muy benn ñaareel bi léeg-léeg bu dara amee comme ñoom dañoo dañoo dañoo ñemet ragal buur communication bi mooy fexe ba ne ñoom ñëpp lañuy boole ñoom ñëpp benn lañu loolu il faut mu jeex fi ku amul courage keroog bi li li am Ziguinchor amee ay nit taxaw def déclaration ñëpp gis ko ne ñun ñoo ko attaqué parce que duñu d'accord mu ñëw fii nit bu ne société civile la bokk dem ci ëllëg sa émission ne ñoom ak ñoom la ñoom ñëpp on les renvoie dos dos loolu ñàkk màndu weesuwul loolu ñetteel bi léeg-léeg ñu ne ñoom ñëpp ay dañoo yor seeni milice ñoom ñëpp dañoo yor seeni bi loolu it ci ñàkk màndu la bokk man de am naa sécurité waaye sama sécurité du ko ñuy yebal ne ko demal fekk ñële dóor leen sama sécurité pour aar ma man la weesuwul loolu la différence entre garde rapproché ak nervi mooy nervi da ngay recruter ay nit jox leen ay gànnaay ne leen dem leen tas mbo mbool mbootaay bële dem leen taal kër jàmbur dem leen euh, song manifestant yi loolu ñun amuñu ko ñun sécurité la ñu am ñun la ñuy àndal fu ñu dem bu loraange waree jógee fële dal suñu ko ñu ñu fexe ba fenk ko lu foofu la yem kon li ñuy essayer nërmal xelu xelu sénégalais pour gëmloo ne ñun ñu ngi waajal am nañu armée yoon nañu lii nañ ko bàyyi nañ ko bàyyi nañuy wax dëgg te yem ci ku mënul wax dëgg nag na nga maanu mu des nag lii nga xam ne initiative bi la ñu ne chart lañu ñu bëgg a signer may wax nii respecté naa trop ñi jël initiative bi trop sax ndax mois de février dañu ñëwoon sama kër ma dalal leen sama sëriñ al amin ak ñeneen ñi mu àndal yépp maa ngi leen di nuyu bi ñu ñëwee maa leen dalal mu fekk fa Bassirou Diomaye Faye ak maître Ciré Clédor lii ba ñu leen dégloo ba pare dama leen ne tànk yi ngeen di dox yéen ban garantie ngeen am ak ban gëdd ngeen am ci Macky Sall ba mu leer ni tey bu ngeen waxeek moom dina leen may nopp muy benn ndax su dee ay xalif généraux ñuy wax ak moom dégluwu leen dina ma jaaxal trop mu déglu keneen may leen ñaareel bi est-ce que bu dee leer na leen ni Macky Sall moo nekkul ci dëgg est-ce que am ngeen sañ-sañ taxaw publiquement ne Macky Sall nekkul ci dëgg parce que loolu mooy ku bëgg a defar buñ ma ne nag non comme président la ñun ci biir lañ ci ruq lañ koy wax déedéet parce que opinion bi dafa soxla xam opinion bi dafa soxla xam bu ngeen waxee ak moom ci suuf mu të bañ a bàyyi ndax di ngeen génn publiquement ne ah waa ji de moom moo nekkul ci yoon muy ay laaj yu ma laajoon awma ci tontu waaye gis naa ni mu demee. ñu nangu leen lool nag parce que keroog le 8 mars daanaka ñoom ak docteur Cheikh Tidiane jee ñoo yendu suba ba ngoon jot préfet di woote tout le temps fa ngeen toll nañu def déclaration nañu woo xale ñu génn ñu dellu seen kër boobu waaja mu ngi woon ci rolal ba bés boobu ñu nangu leen ko kon ñooñu jox nañ leen cër waaye la may laaj mooy diggante wi mars ak léegi ñoom fan la ñu nekkoon ndax bañ a sewee Macky ba mu dem toogaat teguñu ci 20 jours mu dem fii jam ñaajo tëkkuñu ñun ñëpp ne li fi amoon dootu fi am dinañ gis man maay kan ñu ngi fi woon dégguma wax ji bari ci ba bi muy mujj déclaré barki démb ne moom mu ngi tous les pouvoirs pas pour defar réew mi de mais pour song ay ay adversaire politique ci diggante bi bañ ñuy attaque assemblée nationale attaqué ñu ñaari yoon Casamance fan la ñu newoon parce que tam sooy def médiation mbir mi danga koy topp da nga koy topp ñaareel bi charte bi lan la mën a garantir loo xam ne. constitution réew mi ak loi yi gara mënu koo régle parce que violence constitution bi da koo réglementé loi yi réglementé ko ñu am une justice pour régler sax wax dëgg yàlla ñaata plainte la ñu déposé après des violences justice bi faalewuñu ñaata plainte ñaata lañu dugal ci tiroir yi tëj ko lànk ne duñ ci wax kooku nag su dee loolu mënu mënuñu koo régler foofu nga foo ne ab charte boo xam ne amul benn force exécutoire mooy tënkul kenn foog nga ni charte boobu mën na mën na régler problème ñetteel bi ñun duñu ñu nangu kuñ tëj en tout cas man duma ma nangu ku ma tëj parce que signature dafa diis soo signé ba pare ki yor nguur gi moom lu ko neex mu def te kenn du ko wax dara mais yow bis boo yëngatoo ñu ne yaa signé woon bu daloon sa kaw sax nga yëngatu ñu ne yaa signé woon charte bi bu ñu wëlbatee élection yi nga jóg ne du fi amee ñu ne yaa signé woon loolu mooy danger bi nekk ci signature su dee ki ki lay signaloo amul benn benn benn jumtukaay benn euh, euh, kilifteef pour ñaar ñi muy signaloo mu mun mu mun leen tënk ci loolu ñu signé loolu mooy danger signature bi ñetteel bi nee nañu charte lañu bëgg mais charte am na ba pare nañu waxaat wax ji bu leen fàtte ni woote nañ fi ñaari yoon dialogue national ana dialogue national boobu keroog mois de mars ba ñuy waxtaan ak kilifa yi sëñ Bass Porokhane maa ngi koy nuyu di ko ziyaare ñëw ñu waxtaan sëñ Muntaxa Mbàkke yàlla na fi yàgg te wër yónni ko bi mu ñëwee ñu wax nataan dañoo déggoo ne ne ko lépp dinañ ko teg ci suuf ndigal la mu ne sëriñ bi dafa ne lépp lu ngeen jàppoon da ngeen ko tënk ci kayit jox ma moom moo ko yéet Macky waaye daf leen ñaan ngeen teg ci suuf ñu teg ci suuf daal di bind suñu mémorandum jox ko mémorandum boobu mémorandum boobu yéen ko Macky waaw juróom-ñeenti weer wee romb na fan la mémorandum bi toll parce que ci lañ ko ne woon ña ña ña boom xale yi il faut ñu jàpp leen def enquête jàpp leen juger leen tëj leen ci lañ ko ne woon ñi ci gaañu ak ñi nga xam ne seen bakkan rot na ci il faut nga indemniser leen nun de dajale nañ li ñu mënoon yépp ay millions joxe sëñ taxaa yëkkati na 50 million joxe ana lu Macky Sall joxe ndàmpaay kan kan lañ ko jox ci xale yi parce que yëfu soxor ak fayantu rek moom loolu la xam waa do kayit googu ñu ko joxoon ne ko ñetteelu mandat dafa war a jël engagement public ne loolu dootu ko fi tudd defe naa fukki poñ moo ci ne woon loolu chart la fan la toll ñun signé nañ ko ba pare dem def suñu déclaration de Bignona M2D bind suñu charte bopp jël engagement à la non violence ba pare woo leen ñoom pour ñu jël même engagement bi boobu ba léegi attaque dóore saaga loolu lañ ci jël loolu lañ ci récolté lii mooy dëgg bi dañ ko wax ñetteel bi mooy toujours ni ma ko waxee ñun jàpp nañ ni fi mu toll nii la mën a régler problème mu violence mooy réew mi dafa am ay loi am justice am administration ñiy def xam nañ leen na ñooñu ñëpp def seen liggéey violence jeex fii lu ko moy nag ku nekk dina jël matuwaayam ba saa suñ la songee nga mën a aar sa bopp te loolu yàllaa ko njëkk santaane